nit nag boo ko boo ko joxee àqam mel ne di sa di sa doom xam nañ ne ñu bokk réew mi yëpp ñu doon bokk di jullit yépp xam nañ ne xam gis nañ ñu mu yëgee bi gis nañ itam ci digg ma boromam jox giñ ko jàpp àqam loolu yoolu xam ne am na ci lu wóor kon nag loolu noo ngi leen di sant leen ci gërëm bu baax a baax di ci soñ suñu bopp fas yéene ko gën a ànd ak a sax ci liggéeyal lislaam liggéeyal lislaam nag mooy liggéeyal jullit yi rek loolu alhamdulilahi rabbil alamina Eh, sëriñ bi fàggul loolu lépp te lii dëgg-dëggeew turam muy al abdul xadim abdullahi wa xadimu li rasuli moom jaamu boroom rek lay doon boo see digg mag yonent bi nag ak digga lim ci am surga bi yonent bi rek lay doon ndax dàkk ci diggante boobu di jaamu boroomam di liggéeyal bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin wan nanu yoon ay jaamu yàlla la nu te jaamu yàlla rek la nu woon woon nu itam ci nan ko war a liggéeyee ndax mooy rek ni mu liggéeyee yonent bi la ci suñu kéem kàttan xanaa duñ ko féem sax waaye nu def ci la ci suñu kéem kàttan ci liggéeyal kooku moom lëggéeyal ko ci lislaam lëggéeyal ko ci lislaam nag mooy lëggéeyal ko ci jullit ñi kon nun suñu digganteeg suñu bokki jullit yi nga xam ni donc jullit yépp lañ ko seqal waaye rawatina ci rek ñi nga xam ne ñoom lañ seqal réew mi bokk yàlla boole nu bokk boole nu lislaam boole nu réew mi comme am nañ lu wóor xam nañ si te jox nañ ko ak xam seen kéem kàttan kon loolu ñoom lañ leen di fayee nii ñu delluwaat suñu see sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom nammee ni ko sëriñ bi bëggale sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ bi ci lislaam mooy liggéeyal ko ci jullit yi loolu noonu loolu moom la wuyoo suñ bokki jullit yi rawat na suñ ba kilifa yi islaam yi yéen ko seq yéen seq liggéey liñ leen di wuyoo sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom ci nun ni ko sëriñ bi bëgg ci nun sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ko ci islaam moo di liggéeyal ko ci jullit ñi kon nañu xam ne ñun jox nañ leen ñaari loxo fas yéeneen liggéeyal sëriñ bi ci ñoom muy liggéeyal ko lislaam loolu mun mooy suñu wàccif mooy njukkal li nag li ñu war a delloo itam ñi nga xam ne seq seq nañ seq seq seq seq nañ seq nañ liggéey nu seq liggéey bi loolu la seen jukk la suñu jukkal ci ñoom moo de rek ñu gis ñu ñu xool taxawaay xool suñu ñoom ñu gis fa du ñu fa gis lu dul jaamu yàlla ni ko suñ ni ko su ko suñu borom bi ci ñun ni ko Sëriñ Tuubaa bëgg ci ñun sax dàkk itam nag ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñun doon liggéeyal yonent bi nu digg nu nu sax dàgg ci digg liggéeyal ko ci wàll yépp rawatina ci suñu digganteeg jullit yi rawatina suñu digganteeg ñi nga xam ne ñooy suñu ñoom la bokkal barab bi muy réew mi ñu bokk lislaam bi bokk ak bokk kon ah, na ñëpp xam ne nun suñu taxawaay mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ci lislaam ci jullit yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom laa jottali góor góor bu baax ci li ñu séq mu def suñu suñu yitte jëpp ci lislaam dëggu ci noonu bu lisaan déggoo ci moom ñu ànd te déggoo jàmm yi ñu bëgg ci àdduna bi wax balaa ci réew mi foofu la loolu mooy junjub jàmm ji kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ñu kilifi lislaam yi bu ñu góorgóorloo islam gën a dëggu ci ñun nu gën a ànd gën a déggoo di julit di julit dëgg di taalibe bi itam nag bu nu ko defee rek lii nga xam ne moo xam ci àdduna bépp muy ñëpp mas nañ bëgg jàmm te xamuñu fu ñu ko fu ñu ko fu ñu ko jëlee eh, loolu loolu bu ñu ko defee jàmm am na ko bëggee loolu nag bu ñu ko waxee ñëpp war ko gëm ndax sëriñ bi bu xool bi bu ñuy jóg noonu bu am doole bi mu dajee di gaare moom ay na mu gën a tiise na mu gën a tare lépp mu dar dar dar dar ko mu lépp jëmbal teg teg teg teg boromam ci ko ci ci ci kanamam lépp mu def ko te yàlla tax liggéey liggéeyam bu rëy ba ak ba ba liggéey bi ak si fii tey xaddamul toxu dee turuut kon bu la wootee jàmm ñu war ko gëm xaddamul li tax ñu ne wala fi xaw xaw wax ko noonu waaye dañ mel ne xat lu yomb a la jot wala dammul kon liggéey sëriñ bi liggéeyam bu réy bii mu liggéey fa mu fekkoon yoonu lislaam moo njëg ba fii ñu toll xaddamul dee tuut ah, loolu bu nu jàmm dañ ko gëm kon nag ñoo eh, eh, ngi tàllal sunu bokki jullit yépp rawatina sunu bokki jullit yi nga xam ne moom lañ moom la moom la ñoom lañ dëkkal ñu ñuy sunuy bokk di sunu bokki jullit di sunu bokki dëkkandoo ñoom lañ tàllal loxo bu baax a baax a baax jox nañu loxo waaye ñaari loxo nañ leen di jox noonu kon nañu góorgóorlu bu baax na diine dëggu ci ñun na lislaam dëggu ci ñun te ñu góorgóorlu jéem a ànd te yàlla tax ko defee lu ñu nam lu ñu bëgg lu ñu bëgg mu am lu ñu bëgg rek mu am na mu te dara te jàmm rek yaa koy euh, jërë ngeen jëf ñi ngi sant ñépp jigéen ñi di bëggee ñépp ci diine lislaam kon kàddu yaa ngoog jërëjëf moo ngi sant bu baax a baax a baax sant bu baax a baax a baax a baax jël dolli dara am na lu bari lu ma war a loolu doy na moo ngi sant bu baax a baax a baax. li ñëpp taal suñu yaan.